bonsoir à tous ñi ngi leen di nuyu ak fu ngeen mën a nekk 19h passé de quelques minutes euh, ñuy jéggalu ci euh, tardement boobule 19h euh, na bu jotee ci télévision Futur Média moom mooy soir d'info première partie bi ñuy dalal monsieur le directeur du COUD Maguette Sène di itam le maire de Malicounda xam ngeen ko temps yi ñu génn jafe-jafe yi amoon ci Sénégal université bu Ndakaaru dañu ko yàqate bay àdduna yëpp eh, ñaawlu la fa xew moo tax nag eh, ñu daal di koy woo fii eh, ñu gën koo waxtaane waat xoolaat solution yi nga xamante ni moom la ñu war a indi ndax xam ngeen ne examen yi itam war ñu ngi ko doon waajal ca université Cheikh Anta bu Ndakaaru te université yu bëri tëj seen i bunt ndax jamono yi kenn mënu faa liggéey ndax yàqate bu metti ba fa am ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm monsieur le directeur du COUD sur le plateau de Soir d'Info. asalaamaaleykum Binta Diallo maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax di nuyu waa GFM yëpp di tàmbali ci. Youssou ba ci agent yëpp maa ngi leen di nuyu. Mhm. Mhm. nuyu téléspectateur yëpp. ni ma ko waxee sànq université moom yaakaar naa ne bu Dakaaru la fa xew euh, ñëpp a ko ñaawlu yàqate ba fa am keroog 1 juin euh, bi ñuy joxe le verdict du procès opposant Ousmane Sonko ak euh, Adji Sarr ñu def fa loo xamante kenn mosu kaa gis ci université bu Ndakaaru daanaka wax nga ci sax mais waxaat ci du bari wax nga wax ñu situation bi fu mu nekk jamono yi fu mu toll. voilà Adja ne wax dëgg yàlla yaakaar naa koy sénégalais rek. Euh, métti nga li nga xam ne moo xew université le premier muy loo xam ne lii la musul am dans l'histoire de l'université. muy ay émeutes ay euh, yu doy waar yu aboutir à ce université bi yëpp ñu saccagé ko. Euh, notamment campus pédagogique bi nga xam ne fa la xale yi di jàngee jumtukaay yi ñu war a jàngee yëpp daanaka ñu réduire ko à néant muy lu déplorable loo xam ne lii véritablement kuy sénégalais rek naqari na la parce que Euh, ak réew ñoo ànd ñaxtu ak démocratie ñoo ànd waaye nag ñaxtu nag warta tekki di taal di lakk université di taal di lakk ay livre di taal di lakk jumtukaay bi nga xam ne moo tax suñuy xale yi di am xam-xam dégâts yi ci lan ñaata lañ ko xayma waaw ñu xam xayma bi nag. Mm-hmm. Euh, parce que campus pédagogique bi ak campus social bi muy rectorat ak kudd euh, yëpp ñoo ngi jëlee évaluateur ñu mm-hmm. évaluer yàqu bi nan la toll. Mm-hmm. xam naa ne bu ñu paree incha allah dinañ xam xayma mais bari na. bari na dans la mesure où euh, campus pédagogique bi wax nañ ko ci sunu interview yi jiitu. boo jëlee faculté boo jël rek yàqu-yàqu am na ci muy faculté de droit nga xam ne seen chapiteau bi nga xam ne da daan accueillir 1500 étudiants ñu ko daan partagé ak faculté de dañ ko lakk amphithéâtre bi tëdd mhm. donc loolu dafa moom zéro moo fa nekkati mhm. bokkul nag ak salle de professeur yeeg bureau yeeg yëpp yi nga xam ne taj nañ ko fa ci yàq-yàq mhm. boo jëlee rek muy faculté de sciences économiques et de gestion foofu tamit ay restaurant lañ fa lakk lakk fa ay salle lakk fa ay bus notamment bis yi nga xam ne ñoo doon yóbbu étudiants yi ku xam faculté yi nga xam da ngay xam ne étudiants yi dañuy utiliser bis yi di dem ci biir réew mi di jàngi di ñëw donc faculté boo jël rek fac euh, lettre mhm. foofu la ñu yegg lakkee archive yi archive yi étudiants yi nga xam ne ñoo doon jàng ci faculté de lettre mhm. ñu lakk lépp muy lu mhm. ñaaw loo xam ne lii muy sénégalais aussi métti lu nga ko waaye muy sesti bi nga xam ne yéen ñi fa ngeen defee formation seen salle multimédia boobu nga xam ne daanaka kuy journaliste rek fa lañ la formé jàngal la nu ñuy defee euh, multimédia ah, boobu tamit dañ ko lakk ba nga xam ne c'est hors d'usage ak yenn ay bokkul ak bureau yi ak lépp loo xam ne lii jumtukaay la bu nekk ci bureau euh, CESTI. Mhm. boo jëlee bibliothèque bibliothèque universitaire nga xam ne mhm. daanaka mooy euh, mémoire université. Mhm. lakk nañ fay ñaari bis yoo xam ne yii ci suufu bibliothèque bi lañ nekkoon yàlla moo ñu suturaal ba bibliothèque bi yëpp lakkul. Mhm. waaye loolu bu yàlla def loon sutura kon tey jii dañ naan mémoire Sénégal effacé wu na. Mhm. bokkul nag ak euh, bus yi nga xam ne encore tamit mhm. daan nañ ko utiliser ci espace. bari na li fa yàqu mi ngi nii euh, gis nañ ko euh, beneen image la université bi wane. ministre bi mu fa demee sax mi ngi doon wane vraiment qu'il était très choqué te annoncé woon na aussi l'ouverture d'une enquête. waaw nañ ko. waaye tamit dama doon tudd campus pédagogique bi te daw ma sociale ku nekk xam na tamit dañ ko lakkee muy direction wu kudd ñu lakk ko lakk ay bureau sécurité ak yeneen i bureau mm-hmm. yàq ay restaurant mm-hmm. yàq euh, salle Omar Pène bi nga xam ne barke démb lañ ko inauguré te xale yi rek mm-hmm. ma sàmba taxul taxul waaye environnement bi nga xam ne moom lañ doon tuddee université Sénégal yëpp di ko coow ñu gor garab yi ah, euh, lu doy waar loo xam ne lii daal bisu euh, travailleurs yi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw ñu wutal leen ay bis leen di yóbbu ci banlieue bi muy femme de ménage yi nettoyé pavillon yi mm. Mm. muy ñu nekk ci restaurant yi bu mat huit bus yi nga xam ne moom lañu daan yëg di dem ak a ñëw ñu lakk ko mm. ba lépp seey donc muy lu déplorable loo xam ne ni nag effectivement dafa laaj ñu xam auteurs yi ñan la parce boo ñëwaatee ci fee yi c'est important euh, affrontement yi dafa amoon ñaari place yu affrontement dafa amoon campus social nga xam ne police yi ñoo doon jéem a maîtriser étudiants yi fa doon manifester mm-hmm. waaye moment boobu am ay message yu daw ci biir Facebook. waa Pastef lancé ko. wax ne ñoom ku ñu am militant ci Dakar rek ñoo ngi lay ñaan. Fass Gueule Tapée Colobane Parcelles na ñëpp daw dem université. jàppale étudiants yi pour ñu mën a génn ci avenue Cheikh Anta Diop. loolu moo nekkoon dëgg-dëgg seen objectif. donc ñooñu nga xam ne nag ay éléments extérieurs lañ. ñoom bi ñu ñëwee duggee campus social mais campus pédagogique lañ duggee. fi ma tudd nii yëpp daanaka i étudiants ñu ñu àndal ñoom ñoo ko service social bi. nekk ay nit ñu takku nit ñu bari ñoo xam ne ñii bi ñëwee heureusement policiers yi génn. ndax bu fekkoon ne yi dañoo toog toogoon. ci campus euh, social bi di jàkkaarloo ak mbooloo mu bari moomu. nit ma doon na loru te foofu espace boobu nit ku fa loru rek dañ naan étudiant la te jour bu ñu ne woon étudiant loru na foofu maanaam ñàkk na bakkanam ci espace boobu jour boobu pavillon yëpp ñoo doon wàcc génn ci Cheikh Anta bi te loolu moo yéene ñi nga xam ne ñoom ñoo def ñaw def ko. waaw loolu ñoom ñëpp dañ ko vivre en direct ministre bi nee na enquête dinañ ko ubbi ba xam les auteurs sanctionné leen te loolu la ñëpp sax di xaar ministre bi aussi ñu déggaat ko dimanche sur sur grand jury mu wax que ne examen yi dina euh, cours yi mun na démarrer waat mais en présentiel mais est-ce que université Cheikh Anta Diop cours yi mun na démarrer en présentiel ba examen yi mun a ñëwaat étudiants yi dellu si waat. waaw moom li mu mooy cours yi démarrer en que enseignement yëpp ñu basculer effectivement ñu basculer en ligne je crois que ministre bu ko waxee euh, ça veut gouvernement bi pare na pour mm. accompagner université parce que mm. loo deful avant boo tëbee di ko def laaj nay jumtukaay mais yaakaar naa ne ni situation université bi demee tey mm-hmm. xel xalaatul ubbiwaat ko ci ni mu mel nii mm-hmm. waaw parce que danger bi mi ngi fi ba léegi mm-hmm. des questions de sécurité réglé wuñ ko donc il va falloir une réflexion profonde la question sécuritaire euh, à l'université que mm. professeur buy dem di jàngale mm-hmm. sa xel dal nga xam ne yow état assuré na sa sécurité travailleur buy dem di liggéey nga xam ne am nga sécurité mm-hmm. étudiant buy jàng yëkkati mm-hmm. parce que encore une fois malheureusement ay nit ñu ndaw ñoom ñoo def ñaawtee fii ñuy tudd étudiants yi mhm. alors que étudiants yi li ci ëpp quatre-vingt-quinze pour cent étudiants yi njàng rek ko leen jiteel mhm. waaye université mooy milieu boo xam ne ay effectivement mhm. étudiants yi nga xam ne njàng rek ma leen yóbbu université bokkuñ ci ñooña jàng ñibbi yóbbu ay diplôme Ah, dégg seen digali waajur moo leen yóbbu université moo leen fay jëlee mm-hmm. waaye ay li boo ko gisee ay étudiants politique lay doon ñoo mm-hmm. xam ne ñi dañuy activé wu ci politique ci camp yëpp nag mm-hmm. pouvoir opposition ak leneen ñoom ñooy activé wu ba lii mais kon fi ñu toll nii examen ñi ngi si mois de juin déjà euh, est-ce que examen dina mën a am ci ren ji examen mënul ñàkk. voilà xam naa comme dañuy wax ne dañuy dafay enseignement en ligne. d'après le ministre bi wax. Euh, ministre bee ko wax ñu dégg ko xëy na autorité yi ñoo ngi ciy xalaat. peut-être euh, vali instance de validation yi daañ ci daañ addu. Mm-hmm. mais bu fekkee ne loolu la ñu retenir. muy mm-hmm. enseignement en ligne dinañ wut. ay de d'examen yu adapté ak mm-hmm. enseignement en ligne voilà donc loolu peut-être spécialistes yi ñoo koy examiner mais daal la décision majeure mooy bu ñu demul en ligne dañoo obligé na tëj université bi lu yàgg. parce que lii xew pour ñu jàngat ko jël ci ay mesures. Mhm. li yàq ñu defaraat ko. Mhm. bu ñu ko naree xaar mën na jël temps bu bari. Mhm. léegi nag balaa ñuy toog di de temps boobu yëpp. te comme les léegi intik yi ñoo ngi fi. Mhm. ay moyens la yoo xam ne Covid bi wane na. Mhm. seen i seen i seen i seen i performance mhm. lu ñu war a mën a utiliser la. ma keroog ñuy xam ne voilà examen nii lañ koy defee wala présentiel wala wala en ligne rek. alors euh, monsieur le directeur du coup yenn euh, réaction yi que soit soit dans les panels de presse wala ci yenn réaction yi ñu ni euh, que vraiment màgget seen li am université daal dafa mel ni dafa fayir moom ci gestion sécurité. sécurité bi foofu ci université. ba sax am na ñoo xam ne dañuy wax ne dafa waroon a démissionner parce que lii échec la est-ce que euh, tey jii dañ daan gis nga dugg ci néeg yi génne ay jaas yi ah sécu ñu ne ah léegi université bi vraiment Maguette le directeur du COUD indi fa sécurité bu doy mais li ñu gis nii euh, dafa mel ni daal. fayal nga quelque part sur campus social rek la ñu lakk. Mhm. bàyyi campus pédagogique kon nga wax ne ñun on a fay. mais c'est université dans sa globalité qui a été incendiée te yaakaar na dégâts yi ni mu mel campus pédagogique mel ko sax ci campus social parce que campus pédagogique ay restaurant lépp lu fa nekk rek daanaka yàq nañ ko alors que ñun restaurant yi yàq am na lu ñu ci yàq waaye lakkuñ ko et cetera donc affaire bi nekkul question wu Maguette seen wala recteur wala keneen mais je crois que c'est une question de sécurité c'est-à-dire suñuy sec suñu système moo wane ay limitam xam nga ñun suñu agent de sécurité yi amuñu droit wu utiliser fetal amuñu droit utiliser lacrymogène mhm. amuñu droit sax utiliser yat mhm. amuñu daw utiliser dara bu dul seen doole mhm. waaw ay loxo yi nen nan la mën a jàkkaarloo ak ay nit ñu armé wu jusqu'aux dents ñoo xam ne ñi ay éléments extérieurs d'ailleurs lañu ñoo xam ne ñi bi moment wu tension bi bi mu méttee ba métti lañ jaaree ci ginnaaw dugg ci université bi moi je crois que. lan moo ko waral les franchises. voilà franchise universitaire yi la ñu war a xoolaat. moi je crois qu'une réflexion profonde doit être menée. absolument parce que nii ñuy gérer une université. mooy wut ay agents bu ñu doon junni lañu. Mm-hmm. amuñu benn arme ay loxo neen. Mm-hmm. il suffit que fukki étudiant armé wu yore ay jaas yi. Mm-hmm. armé wu jusqu'aux dents. bu ñu jàkkaarloo junniy nit junniy nit di adhère. mais ñooñu fa nan naka lañ def ba dugal armée yu mel noonu ci université bi tey. te yëgu leen ko xam nga xam nga da ngaa suivre ni ma la léegi ne la. xeex bu njëkk bi. nga xam ne moo amul ci campus social bi. entre policiers yi la ak étudiants yi. foofu policiers yi demoon nañ ba maîtriser étudiants yi. mais après dañoo lancer ay appel mm-hmm. ay nit ñeneen façon nit bu ne. mooy ñi nga gis Dakar. Mm-hmm. ak ay armes ak lépp ñooñu ñoo ñëw lakk campus pédagogique bi. Mm-hmm. moment bi bi ñuy dugg campus social kenn gardeetuloon porte yi. parce que boobu policiers yi ñoo xeex ak étudiants yi kenn talatul benn porte. donc ñooñu ñoo ñëw en li ñu mën a jàngat daal ci loolu mooy. Mhm. sécurité université. il faut ñu xoolaat ay loxo yi neen mënatuñ ko. Mhm. il va falloir benn système sécuritaire boo xam ne bii dañ ciy waxtaan ba jubóo ci. Mhm. pour que ku fay dugg nga xam ne man mii maa ngi dugg fii waaye sama kaaraange aar nañ ko. donc moi je que daal boobu. loolu est euh, la ci. waaw effectivement le ministre xam nga ministre bi kenn du ko jàngal université parce que professeur la. lépp li xel université muy képp koo xam ne kii xam nga université. Mhm. xam nga ne tey atteindre nañ suñuy limites. Ah en termes de sécurité mooy. il ñu revoir mhm. le système de sécurité à l'université mhm. doyatul rek ay nit di wax doyatul rek ay nit di buuxante agent sécurité bu xante rek lañ mën ak waxi étudiants yi <laughs> loolu doyul bu xante lu mu mën ci ko yore ay yet nañu gis keroog moom doyul te ñi doon dajji direction bi mais ay ay par ay kii lañu yore ay matériel comme matériel yi ñuy dajjee magasin lañ doon dajjee direction bi mm-hmm. voilà donc loolu day wane ne mm-hmm. vraiment voilà il y a urgence à ce que véritablement ñu mm-hmm. ñu réformer le système sécuritaire à il paraît que euh, euh, agent bi nga xam ne dafa waroon a fay aussi xaalis bu bari jour boobu bàyyi woon na ko ci bureau bi loolu moom ñaata la toll ci te luy étudiant non non non non loolu loolu ah, amul yàlla moo ñu yàlla suturaal mhm. ACP bi nga xam ne daa waroon a jëli xaalis mhm. pour fay les temporaires ah, jour boobu jëliw ko dana naa bàyyi ba suba mhm. waaye bu fekkoon ne loolu am na non non bu fekkoon loolu am na kon musiba am parce que ah. moom bureau agent comptable bi daal lakk ba def yow amul benn laa loo fa mën a retrouver ordinateur yaag lépp lakk donc loolu nag moo gën a paralyser compte voilà parce que il va falloir que ñu saytu loolu bu baax. xool ko évaluer ko def état des lieux pour que ñu mën a continuer di fonctionner. kon daal léegi daal moom daal aspect sécuritaire bi daal la ñu war a jël. muy priorité numéro un. tout à kon loolu ñu xaar euh, ak euh, ba xam ba ci kanam. Euh, solution yi nga xam ne tukkee na fa. comme temps bi daf ñu dafa gaaw dama bëgg aussi ñu waxtaan ci situation politique bi. Mhm. ndax yow maire Malicounda nga nga bokk ci APR. déjà situation politique bi ñuy vivre ba président woote dialogue social dialogue social et dialogue national la. Euh, ñu bare ci opposition bi ne du ñu dem ndax nag affaire deal la dañ faa bëgg a waxtaanee troisième mandat. yow nag nga ko jàngate. xam nga euh, Adja Binta. dama bëgg xamal la ne euh, avancée démocratique yi ñu am ci Sénégal yëpp. dialogue boo ñu ko may. côté yi nga xam ne moo permettre ñu am ñu am des élections avant mille sax. Mhm. yu yu am clarté muy ay mbañ gàcc yi nga xam ne bu njëkk amuloon. Mhm. voté ak carte bu njëkk njëkk amuloon. Mhm. am na yu bari yoo xam ne yii mhm. ay dialogue ñoo ko ñoo ko maye. Mhm. da dem xeex sur le terrain politique. ba ñu woo la dialogue nga ñëw dialogué arraché. donc moi je crois que Sénégal ku fi bëgg a nekk ne doo dem ci dialogue danga ngaa xamul histoire politique bu Sénégal da ngaa amul stratégie politique. waaye kenn mënu fee am dara ci xeex ak ci violence ak ci forcé. moi je crois que dialogue bi c'est très ouvert bu président Macky la question du mandat sax dafa pour dugal ko ci dialogue bi. loolu moo lay wan ne. Mhm. mën nañoo am lu bari ci waxtaan. Mhm. loo xam ne lii bu ñu doon xeex ci mbedd mi dañuy xeex ba ñun ñëpp ñu loru rek waaye duñ ko am. Mhm. donc ma je crois que je félicite. en tout cas mais yenn ci acteurs politiques yi dañ ne justement mandat boobu. waruñu ko sa seex dugal parce que amu ci droit. non am na ci droit xam nga ci plateau bi laa toogoon benn bis ne la. waa opposition bi seen bopp. bi ñuy voté référendum bi. ñoom ñoo ne woon ku voté Macky Sall président Macky Sall. référendum bi ni mu tëddee. bu ko valider ba pare bu kenn ñëwaat ci ñun naan amul droit am troisième mandat parce que disposition yi nekk. Mhm. ci constitution bi dina ko may moom troisième mandat. Mhm. donc du point de vue du ñoom seen bopp d' nañ ne. Mhm. président Macky Sall am na droit nekk. moo taxoon ñu ne nañ ko nañ ko donc moo taxoon ñu ne nañ ko rejeté. ci moment référendum donc du point de vue du am na ay argumentaires yi qui fortement dans le sens que. président mën na présenté waat mhm. comme am na ñeneen aussi ñuy développer le contraire mhm. donc comme ça fait l'objet d'un débat mhm. balaa ñu koy bàyyi ci rue bi muy nekk objet de violence objet de contestation moom mi mu concerné d'accord na pour ñu def ko ci panier dialogue bi mais pourquoi ne pas yi dialoguer buñ ci dialoguer bi lu ñuy def dañoo bëgg ñu xeex cax na wala boog ñenn ñi moom xeex ak violence ah, dañ ne na bi mooy sama euh, dernier euh, deuxième second et a constitution. constitution moom moo féete kaw norme yëpp. constitution moo féete kaw loi. règlement waxuma laa nag déclaration politique. donc même bu ko waxee mais bu ko yoon mayee. war naa mën a dem mu mën na dem mën na dem mu nekk candidat. parce que Abdoulaye Wade defoon na ko fi. ah non mais je bu demee ba accepter. nee ñu def loolu dans le panier. du du dialogue mais kuy acteur politique da ko war a saluer. te dialogue bi yemul ci loolu rek. leer na ma ne nit ñi bu ñu demee dialogue dinañ ci am lu bett lu kawe seen jot loo xam ne nii mm. mm. mënoon nañoo xeex ci mbedd mi ba lu ñu bari loru te duñ ko am mm. mais dialogue bi mayee ko mm-hmm. ndax Sénégal réewu dialogue la réewu waxtaan la réewu consensus la mais justement euh, ñu ngi wax que ne président tey ji dialogue ta ñakk dañ jàpp sax dañu war a def un dialogue beaucoup plus inclusive euh, au vu euh, situation bi nga xamante ni vivre nañ ko ba am ay 16 morts mm-hmm. ñu bari ne tey président dafa war a toog ak Ousmane Sonko am na ñoo xam ne nee na ñu ñu mu toog ak Ousmane Sonko parce que dafa am yoon dafa am lu mu teg ci kawam. Euh, bu ñu négocier affaire verdict boo xamante ne ñu ngi koy soog a joxe. yow lan mooy sa xalaat dafa war a waxtaan ak moom wala dañu war a bàyyi. bon xam xam nga dialogue moom euh, moom boo ko xasee ba tudd rek. Mm-hmm. doo ko amal limite. moi je crois que loolu président mooy apprécier. Mm-hmm. président mooy apprécier ndax jar na mu toog ak Ousmane Sonko. Mm-hmm. am jarul mu toog ak moom. moi je crois que loolu moom libre appréciation la. mais je crois que dialogue moom dès l'instant que nit ki ubbi na ko rek. war war ko wutal limite.

kenn nekk jigéen ànd ak benn avocat war nga mën a wóolu sa bopp war a mën a dem défendre sa bopp ba am ba am gain de cause pour man laa réew réew bi mais dafa jàpp ne da ngeen ko jàpp dafa complot da ngeen ko ci procès juge bi ne mhm. boo demoon kay mhm. leneen lañ la teg sax say avocat mën nañ koo am sa stratégie de défense voilà mais lan moo tax nag yow nga ne reconnaître justice doo dem justice alors que mm. suba boo bëggee nekk candidat conseil mm. constitutionnel wala nga wala cour suprême ngay dem mm-hmm. pour pour déposer sa candidature mm-hmm. Mm-hmm. donc moi je crois que institution yi daal ñun ñoo leen moom ñun sénégalais yi on doit contribuer à les renforcer opinion publique bi nag mooy arbitrer en dernier lieu moom mooy wax ndax nit ki lañ ko teg dëgg la wala du dëgg waaye yaakaar naa ne institution yi. Mhm. dañ leen a war a respecté bu fekkee ne ñun ay républicain lañ. Mhm. bu fekkee ne ñun réellement ay patriotes lañ. Mhm. alors ne ni ngeen def Khalifa Sall def ko Karim Wade noonu ngeen bëggoon def Sonko moo tax nanguwuñu. non non waaye yeewee nanguwuñu sax wuyu si dialogue bi à part Khalifa PDS. xam nga kaa <laughs> yi kaa yi du benn. te tamit politique lañ nekk tey xalifa Sall ma ngay dem ci ci dialogue ba. pour wut mais pour wut euh, amnistie. mais loolu yëpp mën nañ ko régler. loolu day wane ne rek ne Sénégal bu ñu jiitalee dialogue. waxtaan suñu biir lu luñ lu mën nañoo. soulever des montagnes mën nañoo am ay. gain yoo xam ne yi mbedd mi duñ ko may. donc moi je crois que boobu lecture rek laa ci am en tout cas. maa ngi félicité président Macky Sall bu baax. Mm-hmm. ci état d'esprit bi mu am. Mm-hmm. woo doomu aadama yi ñi nga xam ne. Mm-hmm. ils sont ouverts au dialogue pour que ñu ñëw fekk si ko ci dialogue parce moom li ko yitteel mooy ne réew mi dal réew mi jaar ci yoon. pour que projet yi nga xam ne. mais réew mi jaar ci yoon nag baax na mu waxtaan ak xale yi ndax gis nañu xale yi keroog ni ñu doon def di dem di dajji ay magasin di jël loolu dafay wane euh, niveau de niveau fi niveau euh, situation sociale bi toll ci réew mi est-ce que jarul aussi ñu gën a xool euh, xëy wi ndaw ñi xool aussi situation sociale bi. waaw je crois que balaa ñuy wax ay waxu politique tout le tout les temps. je crois que li nga évoqué noonu. Mm-hmm. ça va au président. Mm-hmm. daf ñoo interpellé ñun ñëpp en tant que père de famille. Mm-hmm. population quartier bi yëpp daje Auchan. Mhm. taxaw di xaar ne nañ fan lay Auchan di tojee. wallaay wala ci banque yi. waaw pour ñu vandaliser ko. Mhm. ñii duy ay charrette di yóbbu ñii yore ay pousse-pousse. Mhm. marché ba yëpp sa se cristallise autour toj Auchan. ñun war nañoo xalaat suñu bopp. ñun sénégalais. pas le président mais képp koo xam ne kii tey papa nga. yaay nga. papa yi talatuñu yar kenn ndax situation dëkk bee metti war ngaa xoolaat ne situation réew mi dafa makki nag monsieur le directeur réew mi makki nag est-ce que yéen itam ah, jarul ngeen ngeen xoolaat nga xam euh, amul benn lien ak dem toj yëfu jàmbur non loolu kenn waxu ko mais toj jàmbur jël ko day wane niveau euh, coono bi nit ñi nekkee aussi déedéet day wane na niveau coono mhm. waaye wane na tamit jikko yi loolu kay loolu ndax nit gën naa sonn mhm. maandu te boppam dëgg la sàccul tojul. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw donc moi je crois que c'est les deux choses qu'il faut allier. bëggoon naa ñu waxtaanee Malicounda waaye du fi xaj xam naa Malicounda moom. moom xaw nga faa liggéey dara wala. xaw ngaa liggéey dara Malicounda parce que duma ah, li nga laaj mooy ndax géej gi am na ndox. <laughs> kon liggéey nga Malicounda ba mu baax. Ah, li nga laaj daal mooy ndax géej gi am na ah, ndox ba léegi ñu lay fal te man gisaguma ñu ne lii la ma lii la màgget seen. li ma lay xamal rek mooy. <laughs> dans dans ci avant fin juin bii dinaa inauguré benn forage. waaw ci début juillet bi. dinaa inauguré ñaari poste de santé. benn maternité. loolu rek ay mandarga la yu wane ne ñun. mun na ñoo toog weer. bu ñu inauguré wul wala defuñu pose première pierre. ci domaine ndox. domaine courant. ci mm. domaine santé ci domaine éducation. Mm. domaine boo ci jël rek lañ fa fekkoon 1960. Mhm. ba 2014. Mhm. dañ koo doublé par deux. Mhm. poste de santé yi six lañ fekk. tey jii ñoo ci quatorze poste santé. yaa ngi dégg forage yi ñu fekk fa trois forages. tey jii ñoo ci ñoo ngi ci ah. bi ñu fekk dëkk yu huit villages amuñu électricité tey ñu am. ak universel à l'électricité mhm. donc université bi nga ñëwee bi nga ñëwee université wax dëgg yàlla euh, liggéey nga fa loo xamante ni moom la ñu rajaxe noonu ñuy ñaan yàlla sécurité ba yokku ba li nga fa mëbët yàlla may la kàttan boo ko mottale waa Malick Ndoye aussi dañuy dégg souvent ñuy wax que ne yaa ngi fay def lu euh, li nga xam ne moo tax ñu fal la fa gërëm la bu baax yeneen dinañ am yeneen occasion yoo xam ne dinañ ñëwaat ci sa bilan monsieur le maire de Malicounda directeur également du COUD gërëm la bu baax ci sa teewaay fii dañuy dem publicité après publicité yi sama rakk ju baax ji borom basin bi nga xam ne jarul téeméer ñoo toog fii defal leen journal bi moom Mamadou Mohamed Ndiaye euh, jërë ngeen jëf ci kanam nag après le 20h Chérif Diop euh, moom mooy def euh, la seconde partie de Soir d'Info donc ñu ngi leen di nuyu di yemale fii tey jii la première partie merci.